auzu billahi min asheytaani irajim bismillahi irahmani irahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi xuril mayamin wa man ihtada bi hadihi ila yawmi din mbokki jullit yi mbokki taalibé yi mboolem mbokk yi nga xam ne yéen a ngi seetaan seen télévision ma fàttali ñi nga am mbégte nag mu rëy nekk fii ci Touba comme ni nga xam naka jekk seen télévision ma fàttali si noonu la ko defee xam ngeen ni nag tey jii mooy njëlbéenu dajale gi nga xamante ne xalifa général di murit muy Sëriñ Muntaxa Mbàkke Euh, dajale na ko bokki taalibe yëpp waaye rawatina bokk yi nga xam ne ñoom la bokkal Serigne Touba mbokk yi noonu ngeen ko gisee mboolem mbokk yëpp nga xam ni yàlla dogal nañu ay murit di ay taalibe di ay jullit na ñu nekk jóge nañ fa ñëw fii am na ci ñoo xam ne ñu yeesal seen jëbbal ci Serigne Touba ko jox Serigne Mountakha Mbacké mi nga xam ne moo fi toogal Serigne Touba waaye xam ngeen mbokk yi euh, Serigne Mountakha Mbacké mooy ki nga xamante ne moo fi wutu Serigne Sidi Moukhtar mi nga xam ne wax naa ne juróom-ñaari atam yooyu kenn dootu ko fàtte waaye xam ngeen ne sëriñ Sidi Muxtaar moo fi wutu woon sëriñ Baara Mbacke moom sëriñ Fallou Mbacke waaye xam ngeen ne sëriñ Baara moomu xam ngeen ne moo fi wutu woon sëriñ saali mi nga xam ne mooy juróomeelu xalifab sëriñ Touba te mu jën fi ci doomi sëriñ Touba ndax fàtt ñu ngi fàttali ne sëriñ saali moomu moo fi wutu woon euh, sëriñ Abdou Khadir ginnaaw boo xamante toog na fi diir bu gàtt waaye sëriñ Abdou Khadir Mbacke moo fi wuutu woon sëriñ Abdou Lahad Mbacke waaye nekk noonu sëriñ Abdou Lahad Mbacke wuutu fi magam ju baax ji muy sëriñ Mouhamadou Fadal waaye nekk noonu Cheikh Mouhamadou Fadal wuutu fi magam ju baax ji muy Cheikh Moustapha Al Karim mbokk yi xam ngeen ni ji sëriñ Mountakha Mbacke moom sëriñ Bassirou nga xam ne ni euh, ko waxee saa su nekk yàlla dogal na mu doon xalifab sëriñ Bassirou ci 2007 le 9 août 2007 euh, la nekkoon xalifab sëriñ Bassirou Mbacke xam ngeen ni toog fi ay liggéey yu bare bare waaye liggéey liggéey yu am solo na ci kër soxna jaara gi nga xamante ne da koo yaatal waaye bokk na ci jumaa yu daari minam waaye bokk na ci yeneen euh, jëf yu bare bari yoo xam ni sëriñ Muntaxa Mbàkke def na ko ci kanam njabootuk sëriñ Basiru waaye xam ngeen nag euh, talaata bi jàll la yàlla dogal sunu borom subhaanahu wa taala mu de maanaam mu def yàlla dogal subhaanahu wa taala def sëñ Sidi Muxtaar di yàlleeg boromam moom sëriñ Muntaxa mu wutu ko nekk fii ci Touba tey jii nag mu dajale mboolem njaboot gépp nag ñëw fii ci kër gi nga xamante ni moom la ñuy wax kër sëñ Touba waaye doon këru mag moom nga xam ne ni ñu ko waxee su ne képp ku fi nekk xalifab sëriñ Touba lépp lu fi ay dogal ci yow lay jógee loolaa waral nag bokki taalibe yi ak bokki jullit yi yu ci bare bare mu dajale leen fii nag fas yéene ñëw nag tey di bu njëkk boo xam ne nag day mel ni mooy discours bi nga xamee nag ci la dajale taalibe yi war a wax ak ñoom ci lu bare bare mbokk yi moo tax seen télévision Fatul Bichri ñëw fii nag tey incha allahu taala ngir fas yéene amal loolu gis ngeen ko ci euh, daanaka euh, bañ demee ci fukki waxtu ak ñaar ba tey la fi nekk da ko mbokki taalibe yi jógee fu ne lu mel ne ay délégation yoo xam dañu ñëw di yeesal seen njëbbal ak bokk yoo xam ni ñoom it ay bokki wëllëre leen donte yeneen tarixa lañ ñëw ñëw siyaar si sëñ bi waaye ndokkeel ko ci ku tedd ki nga xam ne moo fi bàyyi ko naka noonu gis ngeen kilifa yu bare bare bare njabootu sëriñ Tuubaa gi bare na fi ñuy ñëw dégg nga ko noonu sëñ Basirum sëñ Abdou Khadir xamante ni bi fi nekk ba tey mooy porte parole yoon wi dégg ngeen ko ñëw na bokk na ci kilifa yi nga xam ne teew nañ fi incha allahu taala lépp loo xam ne dana fi te dana fe waddee seen dana leen ko dana wax dana leen moom loolu mooy yitt ji nga xamante ne naka jekk ci yitt jooju la ñu nekk kon mbokk yi nii rek lañ ko fas yéene amale ginnaaw bu ngeen ànd ak ñun ci kuréel yu am solo yooyu nga xam ne mooy kuréel noonu lañ fas yéene ànd ak ci lépp loo xam ne dana xew fii Touba asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu.

ok jërë ngeen def mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a seen télévision ma fàttul Bichri gis ngeen niñ leen ko waxee rek xam ngeen yittee ma fàttul Bichri mooy fépp foo xam ne ñu ngi fay liggéeyal Serigne Touba rek ñu ba yóbbu fa sunu équipe mbokk yi nga ak si gis nga ko noonu nga xam ne euh, mbooloo mépp ñu ngi àndandoo noonu di ànd ak moom gis nga ko kilifa yu tedd yu baree baree bari ci dëkk bi rawatina ci biir dëkk bi euh, mu ngi ànd ak ñoom mooy lu am solo loo xam ne gis ngeen ko noonu ñu ànd nag ndeysaan xam ngeen ne lii yaram daw na ndax gis ngeen barab bii mu nekk fa la sunu jàmbaar ja doñ nag muy sëriñ Sidi Muxtaar ndeysaan tey mu toog toogaay bi sëriñ Tuubaa moo waral gis nga ko tey mu ànd ak mbooloo nag ànd ay ganam yi nga xamante ne allahu taala ñoom la war a teeru ñenn ñi di ñëw di yeesal seen i njëbbal waaye ñeneen ci des mu woo ngir soxla leen muy lu am solo loo xam ne mbokk yi gis ngeen ko noonu ngeen ko gisee ñu ngi noonu àndandoo muy dugg si ci foofu nga xamante ni mooy mbaar mu mag yi muy lu am solo xam ngeen bu a nekk ndax ni nga xamante ni borom téere bi wax na ko ci biir téere bi booba xamuñu ni Mafaatihul Bichri TV dana am waaye ndekete lépp loo xam ne Serigne Touba bind na ko rek firnde mën naa dikk ndax yittey Mafaatihul Bichri mooy yaatal liggéeyub Serigne Touba bi te moom daa wax ne wasantali tawsiatan yaxbitu nii fiiha siwaaya lii anartaatani mbokk yi gis ngeen ko noonu muy lu am solo loo xam ne euh, gis ngeen ko noonu Serigne baa ngi noonu ñuy ànd ak moom di di dugg ci biir muy lu am solo Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg loolu te gis nga ko noonu ñu ànd ak moom euh, naka noonu solo sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Abdou Xaadir moom it gis nga ko ndeysaan mu ànd moom muy lu am solo loo xam ne euh, ndeysaan yoonu murit nii rek la lii tax yoonu murit doon loo xam ne euh, kiimaanul sunu borom la dafay mel ni leen lu ci nekk rek bu jotee sëriñ bi na mu koy tàllaleeg na mu koy indee day kiimaanul sunu borom na ko ñëpp ñaanal képp koo xam ne yaa ngi seetaan Mafaatihul Bichri TV rek na nga ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér yàlla defal loo xam ne naalalal na ko sëriñ Tuubaa rek mu àggale ko ci jàmm mbokk yi gis ngeen ko noonu ñu leen ko waxee rek gis ngeen lii mooy dugg ci di dugg ci biir mbaar mu mag mi gis nga ko noonu muy lu am solo loo xam ne ndeysaan gis nga ko dugg na ci mbaar mi ndeysaan euh, magam ju ju tedd ja foofu la daan dugg gis nga ko ñu di ko ziar tey jii nag mu indi lu am solo mooy kon tey dafay mel ni yoonu murit day mel ni tey jii yees la ñuy yeesluwaat ndax dafa joxe ndigal ni képp koo xam ne joxe na loxo na xam ne mooy ak ñaanam kon mbokk yi mboolem ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu nan xam ne képp koo xam ne safoona ma faatul Bichri TV international fu mën a nekk ci goxi àdduna bi na xam ne suñu loxo bi ñu jox sëriñ bi mooy dañ ko koo joxeel waa dañ koo joxe joxeel ko mboolem mbokki taalibe yëpp waaye rawatina mbokk yi nga xam ne nag fa ñu nekk sori na waaye tey jii ñu ngi bëgg na ñëw ci wotab sëriñ bi ñooñu nañ xam ne fasaale nañ leen ci jox googu ko jox loxo gis nga ko noonu Mbàkke di recevoir ay ganam gis na ko noonu kilifa yu tedd yooyu yëpp ñu ngi noonu ñoom it muy am solo di di di di loo xam ne tubaarkàl la noonu ngeen ko gisee gis ngeen kilifa yi fenn fa nañu jóge fa di ñëw ndeysaan ñoom ñëpp di yees ñii di yeesal seen i ñii di ñëw di joxe seen i kon mbokk yi seen télévision ma fàttali si nii rek fas yéene def ak ngeen jëf خبون حسن وعياب لكل من اقتنى بسعادة دارين مع كفاية ميمة وأن يغفر لجميع مغفرة تجن كمن لم ينم قط وأن يغفر لوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات amiin ya rabbal aalamiin صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي محسن الظن بين يديك خائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه القوة وخير يا من لديه خير المخوف لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi comme ni mu leen ko waxee rek eh, noo ngi fii nag ci Touba ci kër Serigne Touba gu mag gi nga xamante ni ni ma ko waxoon rek naka jekk mooy kër mag moom gis ngeen ko ñu nekk fii booba léegi ci liggéeyu Serigne Touba bi Serigne Mountakha ñëw na ginnaaw boo ngeen déggee xasida yu neex yu am solo yooyu Euh, kii nu jàkkaarloo nag mooy Serigne Laat Abi Mbacke Serigne Laat Abi nag yaakaar naa mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi seetaan seen télévision mu fàttali Bichri dootuñu ko laajte ndax min nañ ko ci liggéey Serigne Touba muy koo xam ne saa su ne ni ma koy waxee euh, bokk na ci ñi nga xamante ni ñooy firndeel ñaanu Serigne tubaa gu nga xam ni moom la waxan muy zuriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabil Mustafa te caydu euh, Serigne Abdou Laat tey jii nga xamante ni mooy njëlbeenu Serigne bi woote muy Serigne Mountakha Mbacke yàlla na fi yàgg lool te wér mel na ni. ndeysaan kon ak yeesal gu mag la ngoo xam ne noonu ma ko waxee wax na léegi ni kenn ku ne sag joxe loxo mooy sag ñaan muy lu am solo loo xam ne mel na ni bokki taalibe yu bari daje nañ fi eh, yow ñu xam la ngay kenn ci yoon wi waaye doon koo xam ne eh, dëgg-dëgg taxawaay bu rafet ngay taxaw fii ci dëkk bi rawatina ci njabootu xasida gi sëriñ Muntaxa ni mu mel tey ana ban lancement ngay def ci taalibe yi ak eh, maanaam indi sa njaal rawatina bokk yi nga xam ne ngi seetaan ci kilifa gu tedd gi nga xam ne moo fi jógee muy sëriñ Sidi Muxtaar bismillah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu suñ ko sa ñoo ngi leen di nuyu eh, di leen jaajëfal ci liggéey bu baax a baax ñi ngi ñaanal bala ñoo yëkkati benn kàddu ñu ñaanal Cheikh Sidil Maxtaar suñu boroom gën a yokk ay ngërëmam ci sëriñ bi fee mu nekk xéewal ya ko suñu boroom eh, di jox mu yokk ko bu baax a baax a baax a baax duñ ko fàtte wenn waxtu ndax daa doon koo xamante ni ñun Euh, ku fi nekkal sëñ Tuubaa rek euh, euh, yaanu yilif ci lépp moo tax te moom kenn ku nekk gis na ab liggéeyam ci sëñ Tuubaa kenn ku nekk gis na ay naalam ak ay yéeneem li mu jot a taxawal rek ay milliards milliards milliards la kon ñun képp ku ku am ku liggéeyal sëñ Tuubaa rek ñun ñoo am ameel nañ la ak fay ameel nañ la ak ñaan fay gi moom dëkkee ñaanal moom lim liggéeyal sëñ Tuubaa ñëpp teg nañ ci seen bët Euh, euh, euh, yàlla na ko Sëñ Tuubaa yóbbu ca gën a gën a gën a kawe fa nga xamante ni ña ko gën a liggéeyal fa la leen yóbbu foofee la ko teg waaw loolu suñ li ñu ñaan daal suñu borom taas ñu ci barkeem ginnaaw bi loolu jàllee ñuy ñaanal ak njaboo tamit suñu borom kàttan leen ba yéene yim amoon ñoom itam ñu àggale ci yu bare bare bare bare ba naalaat yeneen i naal sàmm leen musal leen di ñaanal nag Sëñ taxaa mu gën fee yàgg te wér ba ñeene jëm am ci liggéeyal sëriñ bi mu mu mu àggale ko fa mu ko bëgg a àggale te yëpp di ñu ànd koog moom nag ñun ñu ànd koog moom. liñ ciy soññee mooy ñun taalibey Sëriñ Tuubaa rek lañ matérielu Sëriñ Tuubaa lan fu nu jëmale rek dañ fay jëm alale Sëriñ Tuubaa lan dañ loolu mooy e, te bu ma ko waxee te wax yaakaar naa ne taalibe yëpp laa laa ko waxaaleel kenn ko ci nekk foofu nga nekk. ndi diglu ndigal wartandi ko tere rek loolu la Sëriñ tubaa sant. loolu la ñuy jëfee ndigal lu jot rek jëfe teera nag yàlla bu nu ci gis moom mi nag yàlla ab yanam wayaf ba fa mu bëgg àggale liggéey bi mu àggale ko foofa waaw loolu rek lañ ci am ay kàddu waaw euh, euh, dañoo xaw a tëlee wax tuuti moo tax ñu ngi jégg wax jërëjëf siñ ko si akay jërë ngeen jëf mbokk yi jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ñu ngi seetaan seen télévision ba Fatul Bichri ñu ngi am mbégte bu baax a baax xam ngeen ni sëñ Abdou xaman xamal nañ ni ab euh, xaritub sëriñ Sidi Muxtaar la woon daan na wéet ak moom lu bare koy ñaanal sunu borom mu yokk ay leeram te sunu ci barkeem sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke mi fi nekkit sunu borom yàggal ko fi ba lépp loo xam ne naalal na ko sëriñ tubaa mu àgg ko mu àggale ko ca nam ko soobee kon mbokk yi lii mooy li nga xamante ne moom lañ jële woon ci sëriñ Abdou Lahad Mbàkke abi moom ahlu xasida waaye sëriñ Abdou Lahad Mbàkke abi mi nga xamante ne yitteem jëpp mooy liggéeyal sëriñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu incha allahu taala noonu leen ko waxee rek euh, dañuy duggaat ci liggéey bi rek incha allahu taala te lépp rek dem ci Mafaatihul Bichri euh, dañoo bëgg ay kàddu dañoo bëgg ay kàddu yu jëm ci Mafaatihul Bichri Mafaatihul Bichri TV xam nga comme niñ ko Bichri TV waaw comme niñ ko xamee rek xam nga tey jii euh, mooy njalbeenu daje gi nga xamante ni euh, daje nañ ko ci euh, ndigalul Serigne ba Bassirou mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne tubaa tey te muy koo xam ni ni ma ko waxee naka jekk yàgg naa doon jàmbaar ci liggéey bi nga xamante ne liggéeyub Serigne Touba la ndax képp koo xam ne nekk na fi rek ci njabootu Serigne Touba gi la Serigne Saliou tey ànd naa ak liggéey bu tedd bii tey jii nag toogaayub Serigne Touba waaye tey jiit yàlla dogal njëlbeenu woote gi nga xam ne woote mu mel ni kon tey jii ak siwaat nañ ci yeesalaat euh, yow it na waa bi koo xam ne jënn jëmm nga te yàgg nañ laa xam ak sëñ Muntaxa kon bëgg nañ ay kàddu yoo xam ne kàddu yu soññee la ci bokki taalib yi nga xamante ni ñoo ngi fépp fii ci àddina bi waaye di seetaan seen télévision ma fatul Bichri jërëjëf ñu ngi bu baax te di ndokkeel ci liggéey bi ak yaatal gi te ñu ñëw ba ni mu gën a gaaw waaw ma ne kon euh, ñu ngi sant bu baax ci euh, sant nag ci liggéey bii ngeen di liggéey nga xam ne li xew fii lépp ñëpp a ngi ci waa ñëpp ngi ci jot bu baax a baax kon léegi ci biir loolu tamit may xam leen ne rek di may soññ sama bopp di ci yi ñëpp mooy nangu dogal yàlla nangu dogal yàlla ki ko def moom war téefam dara du ci tardé muy liggéey bi ndax mun Muntaxa mii kat liggéeyal sëñ tubaab bi dong dong dong mooy li wax ci ñor moo tax bañ bañ bañ cee dogante benn yoon moo tax mu wote ko fi saasi tàmbali koo liggéey ñëpp war a takku nag ànd ak moom jàppale ko euh, ba li nga xam ne moom la bëgg ci euh, liggéey bi ñu mën ko bokk am ñun ñëpp ndax ni moom kat lam bëggal boppam da koo bëggal da koo gën a bëggal sax nit ñi moo tax mu mel ni kenn warta euh, ñoqi kenn warta tayal kenn warta yeex ñuy sant bu baax nag ci ni li nga xam ne doxe na ni moom sëñ Cheikh Sidi Maxtaar yilif ko moo ko mas a gënal mu yilif kenn euh, moom Cheikh Sidi Maxtaar da daa wax ci lu ma wóor mooy ne maa ngi mi ngi ñaan sunu borom mu won ñu xar baaxam ci moom kon bu doon moom rek du fi jóg kon tey ji euh, ñaari nit nag euh, mën nañoo bañ a bokk yëre yuñ sol waaye nag xam naa ne bu fekkee ñoo bokk reer bokk ndékki bu ñu wàccoo ki nga xam ne ñoo bokkoon lu ñu lekk waaw ñoom ñaar noonu la ñu nag kon de xam naa dafa mel ni am na kàddu goo xam dinaa koy dégg nga di ko nga lu bëree bëri mel na euh, bi bi mu fi nekk kenn talu ko woon waaw ndax da daan kurkuri guddi ak bëccëg ak da woote daan kon mel na ni sëñ Mountakha bi mu ñëwee loolu la yeesal amul amul dallu dañ uh-huh. da daan wax ne waxtu ne ñu ngi naan dégg muy woote ana diw nañ woyi diw nañ def nangam ne uh-huh. loolu mënul woon a ànd uh-huh. ak di dallu ak a nelaw nee ginnaaw bu fi sëñ bi jógee mhm. la fi xew waaye waaye du fi woon aw xewit mhm. ma ne mhm. ñëw leen joxeen fale côté bi bi ma kon waaw jërëjëf kon mbokk yi de ngeen ko kaddu yu am solo yooyu nga xam ni moom la sëriñ moom la sëriñ aatu andi muy kaddu yu am solo yoo xam ne dégg ngeen ko eh, muy njiitul Hizbut Tarqiyyah ni nga ko xamee waaye xam ngeen ni sëriñ aatu Diagne bokk ci ñi nga xamante ne naka jekk xamee nañ ko ak sëriñ Muntaxa eh, dégg ngeen kaddu yu am solo yooyu nga xam ne wax na ko yàlla nañ ko suñu borom fayal ci barkeb Seexul Xadim kon mbokk incha allahu taala rek eh, noonu lañ koy toppoo kilifa yi nga xamante ne ñëw nañ ci jataay bi ñoom ñëpp kilifa guñ ci mën a jot rek nañ fexe ba taataan say kàddu ndax loolu mooy yitte Mafatul Bichri mooy fépp foo xam ne ñu ngi fay liggéeyal Serigne Touba rek ñu fexe ba dem fa wane fa li nga xamante ni mooy maneenu euh, Mafatul Bichri te mooy di liggéeyal Serigne Touba fu ñu fi mën a nekk ci gox yi kon mbokk yi lii lañ leen indi leen kon ba ci kanam incha allah tey jërë ngeen jëf mbokk yi euh, ni ñu ko waxee rek ñu ngi fii ci kër Serigne tubaa gi xam ngeen ni tey jii di njëlbeenu woote gi nga xamante ne Serigne Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou tey jii nga xam ne moo fi toog toogaayub Serigne tubaa bi yàlla dogal mu euh, woote fi nekk fii xam ngeen ni bokki taalibe yi fenn fu ne ña ngi fay jóge jëmm ju tedd ji ngeen jàkkaar lool mooy Serigne Ismaïl Diouf laa waaye ni ñu ko waxee rek bala ñoo sori ci kàddu yi dañuy jox sëriñ Balla Samb mu xamale noog sëriñ Ismaïla Diouf ba noppi incha allahu taala ñu door a ñëw nag ci sëriñ bi sëriñ Balla bisimilah. Euh, jërëjëf euh, sëriñ bi euh, kii seex bi nga xam ne moom nga toogal ni tey muy si Ismaïla Diouf nooru laa muy jëmm joo xamante ni boo gisee jëmmam rek sa xel dal ci ni kii ndaw la lu sëriñ Tuubaa yebal waaye jëfam ak jëfam ak yaatug jëfam ak liggéey bi nga xam ne moom lay liggéeyal sëriñ bi ba ko sëriñ Tuubaa di feeñu wan boole ko Cheikh Abdou Lahad ba mu ñëwee Cheikh Abdou Lahad daal di ko koy nangul mu taxaw nag woote ci bokkam yi nga xamante ne dañoo ne jàngoro ka koy mën a faj da koy xam loolu moo ko dal ci biir bokkam siin gépp ak bawol gépp képp ko fi séréer xam nga ni Cheikh Ibrahima Cheikh Ismaïla Diouf Nooru Laay mi Serigne Touba ko yebal ci yéen moo tax fenn fu ne taxawal dafa ab Cheikh ànd ak jëwriñam ci Serigne Cheikh ndigal lu ko def loo mu def ko lu mu ko bàyyi loo mu bàyyi ko mu dem Cheikh Ibrahima Fallam ci kanamam ñu ànd liggéey bu rafet tey jii nag moo ñëw ni toog ci béréb bi nga mooy Euh, mooy kërug Seyxul Xadim gi nga xamante ni kii fi nekkal Serigne Touba Xaadimu Rasuul Cheikh Mamadou Mountakha moom la fi fekk te naka jekk nag ku fi mas a nekkal Serigne tubaa ku ne nii la la fi fekkee rek jébbal la boppam ànd ak mbooloom jox la kàddoom jox la léppam di liggéeyal sëriñ bi nag liggéey bu rafet te ànd ak diine ak suna nag waxuma dara waaye li sëriñ tubaa gën a bëgg mi ngi koy def ci Siin ak Saalum ak Bawol gi mu bokk nga xam te ni jàng ak jàngale daara ya fenn fu nekk doomi soxna séeréer ñu koy am fem nekk ne béréb bu nekk daaraanga fay jolli te ay nit dañ fay enfiis alxuraan di bind nangami téeméeri kaamil di ko jox sëñ Ismaïla Diouf Nour la bisimilah yow la sa euh, bi jox tey kàddu gi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu bu baax sant xaadim rasool di ñaan barke xaadim rasool dara ji rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sëñ ñu fekk si tey Eh, no yàlla teel ko yéen bi te yàggal ko fi te dara ji maanaam Xaadimu Rasuul ñun nag sunu xol sédd na ndax xam na ne li ñuy koy wax rek bés bu ne dañ koy wax ne Sëñ Tuubaa de xam na ne le jox na la lépp kon nag bés mi tey toog na ba ñu def ko Sëñ man nag ak saa njaboot Sëñ Ismaila Diouf ak ku ko yaakaar jox nañ ko sunu bopp ñëw nañu yeesal si di ñaanal di ko ñaanal lépp loo xam ne da koy jox taalibe ndigal ci jëf nañ ci boole te xam ne incha allah lépp loo xam ne yëkkati na ko ci liggéey ci naaj bi ñun ñoo ngi koy ñaan bés boobu luñ ñu ci jox rek dinañ ko defe nuñ ko bëgge nañu àndoon ak sëñ Moustapha sëñ Basiru eh, mu duñu jox ndigal xel koom ñu di ko dox ba egsi ci sëñ Alaaji Baara ci njëfam egg ci si sëñ Sidi ba bés mi tey mu egg ci ci kàddoom mu doon kàddu njaboot sëñ Tuubaa na koy naan yàlla nangul ko ko nangu ko sant nan yàlla bu baax a baax di sant bokki rajo bi ak télé gi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf asalaam ok jërë ngeen jëf mbokk yi loolu mooy kàddu yu tedd yu am solo yi nga xam ni jóge na ci sëriñ Ismaïla Diouf Nouroulah ñu ngi koy ñaanal moom it suñu borom yàggal ko fi loolu tiwir ko dégg nga noonu mu ko waxee ñëw na yeeslu waaye yeeslu waa leen mbooleem njaboot gi yëpp kon yàlla ko suñu borom nangu ci barkab Seexul Xadim kon euh, euh, waaw waaw kon euh, mbokk yi comme ni ñu ko waxee rek xam ngeen ni moom sëñ Ismaïla Diouf mi ngi bokk ci askanu séeréer yàlla dogale dégg ngeen ni ko sëñ Cheikh Balla Samb sëñ Cheikh saam bu waxee léegi mu mu doon koo xam ne suñu borom da ko faa yebal ci ñoom kon nag incha allahu taala dafa bëgg a andi ay kàddu yoo xam ne kaddu séeréer la ngir bokk yi nga xam ne bokki séeréer lañ te aju ci moom ñoom ñëpp wala ak mu bokk ak ñoom tey mu sëriñ bi yabal ko foofa mu war leen a dimbali euh, tawfiixal leen yaatal leen liggéey sëriñ Tuubaa ci ñoom kon ñu dégg taatan ay kàddu yoo xam ne kaddu séeréer la incha allah. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kon indi ni njul ina yonantani sallallahu alayhi wa sant xaadim rasool kon sëñ Ismaila Diouf garay mene xane na bes dimanche a jeblu yi da coɗiida sëñ Muntaxa xooxum to xooya képp xu refna o taal be a jun mbindes jawrin ki fasi yaqe fop na ando bes ne xane i coɗtayo xoox in fo saato yeene ndef xa taal be mo saato yeeno njefo mboso yeene yoona fa sëñ Tuubaa faw ñaana o Muntaxa miñ me a santa paax julli an yonent sallallahu alayhi wa sallam allahumma nga jëf salaam waaw ah, sëñ bi bëgg nañ nga ñaanal télévision bi nga xam ne bi Bichri la tudd yitteem yëpp mooy liggéeyal sëñ Touba. incha allah nu ngi koy ñaanal eh, yàlla def ci bark rek mooy liggéey al sëñ Touba bu faw rek te ku yi daal sëñ xam nga ne ah, payam àdduna ak alaaxira xam nga am nga ko kon nag sayla gi ñoo ngi lay ñaanal ci bark sëñ Touba yàlla barkeel ko lépp lu ngeen ti naal sëñ Touba defal leen ko solo jërë ngeen jëf salaam ak jërë ngeen jëf mbokk yi dégg ngeen kàddu yi am solo yooyu nga xam ne mi ngi jógee ci sëriñ Ismaïla Diouf Nouroullah yàlla nañ ko suñu borom fayal ci barkeb Seexul Xadim ak jërë ngeen jëf incha allahu rek noonu lañ fas yéene ànd ak yéen ila xayra la Baye Laye. sëñ Ibrahima. sëñ mooy sunu mag ñi nga xam ne moom lañ àndal. mooy magam ñi nga xam ne moom la àndal. ci ndigalu sëñ Modou Mahmoud. ci ndigal nee na. ngi nee na. mi ngi lay siyaare bu baax. di bu baax. di Xadim. topp ci moom ba bisu tey. ne loolee la ñuy yeesal si. ci sa jëmm ji. fas yéene. loo digle. loo digle. nu fas yéene a sax. am pas-pasub. am pas-pasub. doonu tere dara incha allah doonu tere dara incha allah. nga ñaanal ci loolu ban man ko. ne nga ñaan leen ci loolu ba ko. ay taalibe rek lañ fas yéene doon. jox la suñu lépp. tey déggu ndigal la tey déggu seen ndigal. sëñ Ibrahima mii mooy sunu mag. sëñ nag nee mooy seen mag. ci daaray kaamil sax ca la nekk. ok ak njaboot yëpp yàlla ngeen jëf. taal leen seen loxo. waaw. taal leen seen loxo wax nañu affaire. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم محون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون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 وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا موزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعون القديم لا الشمس ينبغي لها أن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 kay jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi seetaan seen télévision ma fatul Bichri dégg ngeen liggéey bu am solo boobu nga xam ne euh, wax dëgg yàlla mbokk ñu ngi ko def bañ xëyee ba tey dégg ko ci alquranul karim karim ndax xam ngeen Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul moo waxal ni malakanil quranu tamlikan ya duum loolu moo waral képp koo xam ne dégg ngeen ko ñu koy tudd di tudd Sëriñ Tuubaa rek day def ci alquran lu am solo saar wu am solo woowu nga xam ne doon na ko tare léegi muy saar wu am solo muy yaasin xam ngeen ne yaasin mooy xolub alquran xam ngeen yaasin mooy xolub alquran kon tey jàng nañ ko ci dëkk bi nga xam ne mooy dëkkub Sëriñ Tuubaa ne moom la moom moo waxan sunu ni sunu borom moom loo na ma alquran moom gu sax waaye sunu borom sanama ma alquran waaye sunu borom donnaloo na ma alquran waaye sunu borom jox na ma alquran ci ak moomeel waaye jaay na ma ko ci ak njëg waaye sarax na ma ko waaye may na ma ko kon xeetu mayeen wu nekk Serigne Touba rek sunu borom jox na ko alquran moo tax barabam boo xam ne njabootam gaa ngi fa rek da ngay dégg alquran nam fay amee solo ak nam fay jolloo dégg ngeen ko moom solo loolu mbokk yi xam ngeen ni mboolem mbokk yi nga xam ñi ngi seetaan seen télévision mu Fatul Bichri te suba ba tey ñi ngi fii moo taxan Serigne Touba di wax ni karamani fi mawdi'i wa baladi mukarrimun bi am am solo loo xam ne da ngeen ko noonu nga xamante ne Serigne Mountakha indi na ko muy lu am solo di liggéey bu rëy rëy boo xam ne xam ngeen mbokk yi naka jekk rek niñ koy defee mooy ku fi nekkal Serigne Touba yaa ngi ñëw fii ci kër Serigne Touba gu mag gi nga xamante ne euh, mooy kër mag moom mbokk yi kii ñu jàkkaar loolu nag dafa naa ne ñii seetaan télévision ma fàttali bi Serigne ñëpp miin nañ ko mooy bi nga xam ne barab bi ñu nekk tey moom moo ko defar waaye barab Euh, ci bitim réew la nekk ay at yu yu bare bare di def liggéey bi Serigne Mountakha jëlee ko bitim réew indi ko waaye xam ngeen ne tey gis ngeen ko noonu loolu ngeen jàkkaarloo liggéey bu rafet yëpp moom moo koy def waaye yàlla dogal mu bokk ci njabootu Serigne Mountakha nag yàlla dogal mu bokk ci njabootu Serigne Mountakha tey kon bu ñu ñëwee moom mu doon collaborateur ak euh, Bichri bi tey ñu fekk ko fii kon dafay mel loolu lu am solo la loo xam ne bu ñu rek war nañ koo jox sunu laaj ko tey ana ban yëg-yëg la am ci lu li nga xam ne Serigne Mountakha andil nañu ko bisimilah alhamdulilahi rabil alamin ñu sant Serigne Touba bu baax di la sant yow sëñ Thie sëñ Koso seen taxawaay lii jiitu na lii fu euh, damay wax ba tàyyi micro Bichri TV bala ñuy tàmbali na ñëw ndax lu saaw léegi Serigne Bamba bi rek mooy yitteem ba tax na euh, yitteem guddi muy bëccëg fu dañ may woo ni ma sëriñ bi bu lu lépp lu muy yëkkati mu jëm ci lislaam wala yëkkati yoon yi déyinu ko ndax njariñ li ñu njariñ li mu am ak déglu déglukat niñ ñu ko yittewoo ba tax na màggalug ren gi euh, xam gi ma xam ni yitte sëriñ Muntaxa rek moo seen yitte moo tax ma leen ma jàppale leen ci liggéey bi itam lu leen di dooleel ak itam lu tax ñu xam xamle euh, sababu sëriñ bi indi ma indi ma ci réew mi ngir liggéey sëriñ Bàmba yi rek maa ngi ci sant bu baax na kilifa yu bari bokk nañ sëñ Muntaxa ak tànn ci man kon nag sama njàmbaar mooy yaakaar yi ñu am ci man ngir sëñ Muntaxa ma jàppale sëñ Muntaxa ba yaakaaram du ca tas te moom de ab junjam du mooy loolu rek euh, mooy sama yaakaar ci moom maa ngi leen sant di leen gërëm di leen xamal ne sëñ Tuubaa mi ngeen di liggéeyal yàlla na leen fay fay lu kawe seen jortu te sëñ Tuubaa moom ñëwul ba daa am pay jërëjëf ak jërë ngeen jëf mbokk yi da ngeen kàddu yu am solo yooyu nga xam ne Serigne Mountakha Mbaye DMS moo andi na ko muy kàddu yu am solo yoo xam ne kon wane na ni kon Bichri TV xaarul ba tay mu door a ñëw Bichri TV dafa dafa teel a jóg ñëw engagé dugg ci liggéeyub Serigne Touba bi nga xamante ne naka jekk moom lañ ko xam leen kon noonu rek lay demee incha allahu taala liggéey bi lépp rek noonu lañ fas yéene mu demee ni incha allahu taala kon mbokk yi jërë ngeen jëf euh, ñi ngi sant bu baax a baax di gërëm ci tawfiix gi nga xam ne sëriñ bi defalati nañu ko ci ñu fas yéene nag ànd euh, sóobu di door a jóg nag ci liggéey bi nga xamante ni moom la Serigne Touba teg ci loxob Serigne Mountakha al mooy kon tànn ki al Mountakha mooy kon tànn ki kon ma fàttali bis kon tey yitte mooy fas yéene nag yeesal yeesal ay ay ay mboolem ay jumtuwaayam. fépp foo xamante ne liggéey Serigne Touba nga fa rek rawatina Serigne Mountakha Bassirou mi nga xam ne dafay nekkal Serigne Touba. Euh, ñu ànd moom ci bépp liggéey boo xam da koo simb wala bépp liggéey bu muy def kon mbokk yi nañu def day ngeen xasida yu am solo yooyu ni may def rek mooy euh, bàyyi leen xasida yu tuuti rek ñu door a ñëwaat insha allahu taala jërë ngeen jëf. Murtala lanu yàgg a roose tey alxaaji Seex Mbàkke lanu yaakaar fii ba fanu jëm Seydina Muhammadu Seex Bamba Seydina Muhammadu Seydina Muhammadu mama fii ak fanu jëm rasulilaay sëriñ Seex Mati Lay lanu yaakaar fi ba fanu jëm seenina على الكتاب المشتبه ما جميل قال معك احمد ربي يا العسيم عمدا كثيرا لا يلي مصليا على الكريم خذ الورى قال معك اقرزال ارسل مجيد مسلما على الهار بكركلي قال معك ساكتا اسكسنا لنا لو وفتولنا سرين بامبا لو خطاب بداهيا waxal daale abral haya sare bor yàlla ya rabana ya rabana ya rabana ya rabana ya rabana ku sayana bor yàlla ya rabana ya rabana ya rabana ya rabana بنات زيها بن جل مكان للمصطفى الذي ترام له صلاة وسلام ما امتدى كل امرمت جل مكان سري من اندهل خد بجودنا وعلي سبنا وسبي وسلم شيخ بامبا سري على من جهل bon Bamba wa salliman ya rabbi ya ala khitam anbiya wal mursalin al anfiya ala rasul rahmate والي والأمد وكل نجل معك يا البقاء والخدم من تقبل خدم وذل تخدم شيخ بامبا ساك خيار العرب ساك المنير العرب ساك سبيل تلبه تبيب سرين بامبا سري على باب الهدى نال مدام الندى لدري إدام إرادا باب الهدى وكرم شيخ بامبا سلالة باب الهدى نال مدام لندى لدري إدام إرادا باب الهدى وكرم شيخ بامبا سلالة باب الهدى نال مدام لندى لازل إدام ردا نجل مكة وسلم على المين زكى المكين sakal mujur wal khamin bisasana wa taramin njol maka sakal wahid wal majir wa wal mubar wal ayat man bitiqam tan yaqut Cheikh Bamba salli wa sallim ya qadir ala sirakal munir wawal basiru wa nasiru Serigne Bamba wawal basiru wa nasiru wawal basiru wa nasir benn Serigne Bamba wawal basiru wa nasir wawal basiru wa nasir wawal basiru wa nasir Serigne Bamba wawal basiru wa nasir wawal basiru wa nasir wawal basiru wa nasir benn yol maka saka rasulu rahate wa sakara buraati وساق الفزاءة ساكر سوم الهمين شيخ بامبا صلي وسلم سرمدا يا من كفان كمدا على البيت مدا وليكن من هدى شيخ بامبا لجمل لنا ساهرة وبارني بتائرة يا ما ينكبائر بجاهي ولا مبير سرين بامبا يا من لديه أملي أني على المسمين salli be kullu ko mala njol makke wa sallim na ya badi alal mutay wal mutay sakal musafi sabe Serigne Bamba seri alal mu bajjale ya man amar khajjale wa innaka huwa jala wa indaw baqana Serigne Bamba seri alal mu bajjale ya man amar khajjale وعندكم هو جليل شيخ بامبا سري على المبجل يا من أمان خجلي وعندكم هو جليل شيخ بامبا سري على المبجل يا من أمان خجلي وعندكم هو جليل bur yàlla ya rabbana ya rabbana ya qilana ya ibana mina taqabal qurbana shabamba salli wa salliman ala man qad ajaba bi bala yawma alatu awala shabamba salli ala khayri rasul ya man be yo bo بالآل وسبل الأدول وقد تقبل خلمه نجل مكة أبلي